téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte ak bànneex di jàkkaarloog yéen fii seen télévision réew mi TV la télé du poop télé bi ngeen bëgg saxoo ko di ko seetaan di ko bàyyi xel saa ne ci ay programme yu am solo seen émission xew-xew réew mi nag dooraat na du lundi au vendredi à partir de 16h dañuy ñëw avec les thèmes de la société li ñuy dund moom la ñuy indi ci teg ci table ji waxtaan ci waaye na trouvé ci ay solution ndax olof Ndiaye nee na réeroo amul ñàkk waxtaan moo am te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ba tax ne dañuy gën a defaraat li nga xamante ne moom mooy jikko defaraat li nga xamante ne moom mooy toog yi waaye xoolaat comportement yi ba tax na rek ñu ngi nuyu képp koo xamante ne ñaa ngi ñuy bàyyi xel ah, fii ci Sénégal waaye rawatina ñi nga xamante ne rek ñoo nekk bitim réew euh, j'espère que instant bii nii ñëpp a ngi toog di ñu seetaan ndax tey moom jour jour férié la ah, kenn génnu kenn demul fenn ah yaay kenn génnu kenn demul fenn rek xam naa ni ñaa ngi toog di ñu seetaan ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen sargal fépp fu ngeen xam ne rek fa ngeen mën a nekk di béggee li nga xamante ne moom mooy réew mi TV la télé du peuple waaye nag bi nga xamante ne moom mooy xew-xew réew mi ñi ñi nga xamante ne fi mu nekk di xew-xew réew mi rek la ñuy topp macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen wax ne tey dañ leen indi li nga xamante ne moom mooy thème bu bees tey ñu fas yéene waxtaanee la situation des handicaps et la société sénégalaise moom la ñu war a waxtaanee tey ak suba incha allah waaye nag bu subaa dina ci indi invité dalal ko fi waaye nag nag dama fas yéene rek euh, bokk plateau bi ki nga xamante ne mooy dama koo nam moom muy sama yaay bopp maman Ndiaye ah mm-hmm. kenn dootu ko présenté mm-hmm. nee naa la maman Ndiaye Ndoye li sañsa bi di rafet fi mu génn li sañsa bi di rafet lépp <laughs> noonu noonu la expérience bi macha allah yaatoo waaye noonu la nag euh, xel mi sellee bu baax a baax a baax ndax nee naa leen bu leen fàtte ni sociologue bu mag la ci réew mi kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyam bu rafet macha fan yi nag mu demoon bàyyi ma waaye waaye nag euh, Marie Ngom daal ñëwoon na jël relève bi ñu koy nuyu nag tey bu baax a baax a mm. baax Marie mm. mu nekk nit ku mm. baax moom tamit nekk journaliste chroniqueuse nekk ci kër gi ñu koy nuyu bu baax a baax di ko kontaan nañ ci li nga xamante fan yi bokkoon na ak ñun plateau bi ah mu nekk sa doom bu yaru macha mm-hmm. allah moom tamit xel mi seetlu lool mm-hmm. yaay booy di la wax moment Africa moment diaspora jëloon nga sa yoonu bopp nag de waaw kontaan rek euh, ñu nuyoo euh, comme d'habitude ñaanal réew mi yëpp mhm. ñaanal monde bi comme niñ koy defe nag ñu def rabbana atina fi dunya xasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار maa fi ni ngeen mën ma name woon noonu laa leen name bañ naa ko ba damay jékki-jékki sax connecté wu mhm. xool xooy met li ngeen di def parce que mhm. xel maa ngi fi daal picc gi ci kaw leen doon gis depuis la <laughs> salle de quatre heures mhm. ba ba bay xool nii direct bi bu kiiwee rek damay doon xool bi dëgg la dama doon xool tuuti léegi nag euh, gërëm ñëpp gërëm sant ñëpp vraiment nuyu ñëpp tonton merci beaucoup Mhm. Euh, de la compréhension ak équipe bi yëpp. Mhm. am nañ gan nag bu jógee France tam mu ma naan Ndiaye au soo les émissions bon nuyu ko. Mhm, madame Ndéné Sow Camara. ah madame Ndéné nuyu bu baax a baax. voilà elle est venue avec une délégation de Rouen. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la wax ni la dalal ak jàmm ah, bon séjour fi nga xamante ne rek moom mooy Sénégal. wax ni ñu émission bi nañu ko bëgg sax ñi diaspora bi moom moo raw. di xaar leen ñu rek bientôt. ñëw ci diaspora bi ñoo leen ko dig en ah, saa su ne ngeen laajte kan ngeen ñëw mais dinañ ñëw incha bu ko defee maa sama yaay mm. ah maa yow ñooy dem waaw incha allah ak tonton El Hadj Arouna Fall mooy dem gisee nañ ko xool ci moom yow maa yow ñooy dem tonton El Hadj Arouna Fall ñooy dem ah, ah. déedéet ak Fama déet waaw ah, ñett ñooy dem waaw Serigne Diop nag waaw ñett ñooy dem ñun ñett ñooy dem léegi su ko groupe bi yëpp koy dem ah tey tey tey tey koo jàkkaarloo tey moom daa mel ni ah bés bi dafa spécial. waaw ndax tonton Matar Ndiaye Diop tey moom moo nekkaat ci plateau bi macha allah daal di def sañ bu baax daal di ñëw fas yéene jàkkaarloog Simon. ñu daal di waxtaan waxtaan bu am solo ah tonton nuyu naa la di la wax moom tamit bu leen fàtte ni. Euh, thèmes yi moom tamit da ciy dugg bu baax a baax indi ci li nga xamante ne moom mooy ay intervention yu am solo waaye su paree rek day joxe ay solution yu seddu guy nit ñi tamit di ko bàyyi xel bu baax a baax saa su rek di yàkkamte li nga xamante ne moom mooy ay ay ay xalaatam yu sell mm. macha allah sama tontoo la nag ba tax na lu lu ma neex laa koy wax waaye nag fi mu ne nii guerre bi man damaa sonn ci guerre bi sax dama nuyool rek ñu dugg ci thème bi incha allah nuyool rek ñu dugg ci thème bi waaw salaamaaleykum <laughs> ci sunu émission bi nga xam ne. Mm-hmm. dafa amal askan bi mm-hmm. ba waxuñu bu jotee. Mm-hmm. dañuy daw. mu joxe sunu wàll su wàll sunu wàll ci wàll bi. gannaaw sunu Sénégal gi dañoo am sunu réew mi. te réew mi moom lañ ko war a liggéeyal yàlla dogal nag ñuy nekk si benn groupe de presse bu ñuy wax réew mi kon lu ñu mën nañ ko def pour liggéeyal réew mi ñun suñu tur groupe de presse réew mi la tudd maanaam dañuy bay suñu waar ci réew mhm. kon noonu la ñu war a taxawee ci biir réew mi réew mi liggéey ci biir réew mi mhm. Mhm. ba tax na kontaan nañ ci loolu euh, toog fii war a waxtaan ak askan wi tey nag ba su euh, ba su férié la ni ñu koy waxee tey mais suñu borom dafa dogal ni <laughs> férié la dafa dund <laughs> yàlla dafa dogal ni bu leen commencé waaye non non lii di presse waaw ak ku ma wax moo ko réer. ah. ba hmm. su euh, lii di presse. Hmm. lii di takk der mooy force de défense et de sécurité. Hmm. lii di nekk ci ci corps médical. bokkuñu si. dëgg la ndax presse dañuy joxe information te nit ñaa ngi ñuy gis nga ñu ngay wax ne dañoo dalu. ñooñu dañoo toog seen kër bëgg ñëw déglu tey jii en toute quiétude. ah c'est bien daal di ñu seetlu moo tax ñu ngi leen di nuyu di leen sargal. di leen wax ni seen i xarit seen i mbokk. ñu ngi nii. fas yéene waxtaan ak yéen ci xew-xew jamono. di la nuyu baax yow soxna Ndiaye di la wax ne na ma mel nga. wallaay foog la ne ne fa xam ne maa moom. ci defante lañ dëkk. dem bi ngeen dañ ciy bëgg bu baax. incha allah waaye boobaa. dañuy bàyyi rek nañ suñu benn correspondant bu nekk bitim réew. kooku boo leen demee kooku mooy animé émission bi. kooku ah. <laughs> <laughs> xam nga koo xam a kooku mën a. moo ñu dalal kii puus tuuti. li lépp kaw jàmm nag. nag euh, kër gi moo ñu demee. <laughs> di nuyu a a mm-hmm. euh, mm-hmm. mm-hmm. koy nuyu bu baax. defal ko jàmm ak xéwal defal ko njabootam. di ko ñaanal suñu bu baax a baax mu yàgg fi di yàlla teg si ay mbiram loxo. amiin dama koy wax nit. buy def dara te yàlla suturaal mu leer ko ne lii mu créé mhm. lii mu xëy mhm. suñu borom bu defoon ne créé wu ko sax bu ko teree dund mhm. macha nga créé benn mbir moo xam ne plus d'une centaine de personnes ci xëy di ci for di yóbbu seen ko sant di ko ñaanal mu yàgg fi lool te nuyu bu baax baax tout le personnel du groupe promo consulting di ñaanal ñëpp jàmm ndax a naa ne ay góor yàlla lañu fàttewuma nag nuyu bu wóor mooy nuyu sama techniciens yi nga xam ne lépp bu rafetee lépp bu baaxee. Mhm. ñoomoon kenn du ñoom de dëgg la kon nag mhm. bisimilah. Mhm. <laughs> maa ngi lay fay bu baax a baax tonton Matar Ndiaye yaay guerre bi nag foog nga jël sa mm. parti yow moom foog nga jël parti ma xam ba xam fii nga far wala fee nga far bu ko defee ñu mën a avancer yaay boy bon bàyyi ko mm. tax na rek tey dégg li nga xamante ne moom mooy thème bi li ñu fas yéene waxtaanee ah muy situation des handicaps et la société sénégalaise macha allah parce que nee naa la ñoom tamit su suñu njaboot lañ bokk ah ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. amul xaaj amul seen ba tax na saa su ne rek euh, dañuy war a waxtaanee parce que nee naa la société sénégalaise sénégalaise moom dafa xaw a doy waar. Mm. parfois nga gis si yoo xamante ne danga naa est-ce que Sénégal laa nekk mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. te nag bu dee bitim réew dañ leen a jox cër. Mm-hmm. respecté leen fonk leen. mais bu dee Sénégal gi lan lañ xalaat waa boo nekkee handicapé dangaa war a taxaw ci mbedd mi tàllal sa loxo. Mm. déedéet tollootum jamono boobu noonu. handicapé yi fi mu nekk nii ñu ngi jàng. handicapé yi ñu ngi liggéey. handicapé yi am nañ fulla am nañ fayda gëm nañ seen bopp. tam def na seen association xam ñoom ñooy kan. waaw ku leen respecté wu ñoom ñu respecté nañ seen bopp jox nañ seen bopp cër ba tax na tey nag émission bi tey ak suba ñoom ñoo ko moom dañuy fas yéene waxtaan ak ñoom bu baax a baax ñoom bi ñu waxtaan li nga xamante ne moom mooy société bi mm. waaye tey nag damaa bëgg ñu ñëw ci ponk bu am solo mm. mooy maanaam soo juree doomu handicapé mm-hmm. bu njëkk ba danga naan nëbb mm. ah yaay booy parce que ay xas lañ la ko daan waxee mm-hmm. dana naan liggéeyoo fi mm. ba tax tey indi nga doom bu mel nii te parfois yàlla nag moom mooy bind mm-hmm. woykat bu mag ba da koo wayoon ah muy suñu papa Ousseyn Ndiaye ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér mu ne laaw la cat mhm. bul xool nit na na nañ ko bindee mhm. waa mhm. laaw la xam moom la muy def ba tax na rek saa su ne nit yàlla moom muy bind xool li ko neex mu def ko kon nag dañ leen bu njëkk ba dañ daan jël doomu handicapé di ko nëbb doo bëgg mu génn doo bëgg mu nit ñi di ko gis parce que xas la doon nekkee tonton avant ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy évolution yi woykat bi ci gën ci waxoon dafa ne. Mhm. sant yàlla te julli ci moom. Mhm. ndax lu ko neex def. Mhm. lu lay mel. yow di reetaan nit na mu bindoo laaw la rek xam la muy def. ma xam magu démb laa nag. waaw <laughs> man woy boobu sax jiwu <laughs> ma ko woon. man woy boobu sax capté wu ma ko woon ah. Ousseyn Ndiaye bi nekkoon Ndiaye moo ko woy waa macha allah. ndeysaan. ah boobu war naa ko déglu. suñu borom. mooy borom kun. wallaay. mooy xool lu ko neex. Mhm. nit day juddu tey jii mu fat ndeyam. wallaay wallaay wallaay. nit juddu. Mhm. mu fat mhm. ndey ji des. mu neex nit wusin léegi moo mu boole leen doom yëpp yóbbu. wallaay wallaay. dëgg la. te leer na ma ne soxna yi. ñaanoon. tey jii ñoom seen doom des. ñoom ñu dem moo leen gënal. ndax gënal moo moo mel moo gis moo neex moo metti. kon nag tey jii suñu mm-hmm. borom bu jëlee jaamam. Mm-hmm. xool ku ko neex. Mm-hmm. mu teg ci moom benn laago. moo xam ne tax. da ngay doon sant bu baax a baax a baax a baax. métti na nag mais da ngay nangu. ndogalu yàlla. ndax bu ko neexoon ci benn saa nga jóge fii. suñu borom moo xam lu ne te waykat bi dafa ne mm-hmm. xoola laago du wees mm-hmm. gis nga ngay xool nit mu am laago mm-hmm. ngay am noo koy calculer xamoo lay xaar mën ngay dox rek wàcce escalier bi daan def benn blessure boo xam ne kenn mënu si dara nga jëlee ci handicap dëgg la mën nga jékki-jékki man xam naa saa benn grand yàlla ko yàlla xaree àjjana dëdd na ci at yi dafa jékki-jékki gentleman solu rafet mën a bëgg lu baax. dafa jékki-jékki rek noppi di wàññi bu jékki-jékki rek déggatul. déggatul oh la. biir day ma lay wax sama grand yaa ko yàlla xale mm-hmm. nga gis nit te ñun ñëpp jomb ñu. Mm-hmm. jékki-jékki ay bëtam muuru. Mm-hmm. muy dem. Mhm. te buy juddu day gis normal. waa dem ba mu yàgg dëgg la. sans compter yeneen feebar yi nekk ci biir nit kii. Mhm. dëgg la euh, ñi nga xam ne dañuy dem ba si yàgg mhm. la. handicap la dëgg la suñu borom moo ko dogal. ñiy jël nag seen seen njaboot ñu am handicap ñu leen di nëbb. pour lan nëbb. nga fii nit ki xëy di liggéey muy man di yow keneen. bu ñu mënul. Mm-hmm. bu ñu sañoon. Mm-hmm. suñu borom daf ñu defal loo xam ne ñun ñooy jëlaate nit ñi di liggéeyal. wallaay gis nga ñuy tukki. Mm-hmm. yàlla wërsëgul leen alal. bu ñu sañoon bés ba ñu demee. bés boobu la ñu am alal. takk ko ñëw ñibbisi. seen dëkk. soxna yi góor ñi ku mënul. bés bi nga amee soxna bés boobu. la soxna si di ëmb. nga ngénte mm. xew ci benn bés bi mm. sa àdduna neex mm-hmm. mais nag bu ñu demee ba yàlla teg ñu mm-hmm. teg ñu laagoo mm-hmm. bu mu jaral kenn di nëbb wallaay sante ko suñu borom bu baax a baax a baax dellu si moom te xam ne ñooñu dañoo juum ñooñu tey jii ne am laa ko nañ leen jël toppatoo lañ leen taxawu leen man sama frère papa mm. amoon na benn doom boo xam ne dafa jékki-jékki rek méningite la ko duggee woon. waaye mhm. méningite waaye. méningite la ko duggee woon mu suul mhm. mënatul wax. mënatul wax mënatul dégg. mënatul dégg dëgg la sama mag la suñu ñaari bàyyi bokkul ndey ak bàyyi ñu tuddee ma bàyyi. ndeysaan samay frère ñu may dégg. ko France yóbbu nañ fu ne. laaj am moyen. sunu borom mais sunu borom doom ne. Eh, sama sama xalima. Mhm. dootul dégg dootul wax. ñu indi ko paa bi dugal ko école am na école day surveillé fii. mu dem di jàng di jàng. Mm. yàlla dogal mu nekk dessinateur en bâtiment bu mag. xoolali bu toogee ci table bu la rëddalee kër bu ko dessiné si xol sedd. Mm-hmm. mu nekk ci loolu di ci liggéey bu xëy. soo su moom rafet. wallaay ndànk. ndax dem. wutul ko appareil boo xam ne day mm-hmm. fokk tuuti. dem mm. ñëw dugg bureau tracé ay bâtiment. bu mm-hmm. ba ñibbi si. suñu waa kër nangu ko ak fierté. waaw ak fierté. gis naa ñoo xam ne. laabu yaram la ñu am. sol seen mm. tànk. wala mm. seen loxo. Mm. mais man ñi ma xam gis seen waa kër li ngeen muuree. uuf leen. gunge leen. assisté leen. ñooñu ñoo nekk ci dëgg mais képp ku jël sa njaboot. mu nekk ci mu nekk am laago. nga koy nëbb. di ko nëbb àdduna te yàlla nga koy gis. yàlla mi ko sàkk. jum nga na nga tuub mm. dellu benn benn côté la waxaa ah, ñuy rafetlu côté bi nga waxee mm. macha allah parce que bu ñu sañoon handicap bu amee mm-hmm. taxaw boobu lay am comme li mm-hmm. nga wax nii dañ ko taxaw yóbbu mm-hmm. nañ ko faj nañ ko par tous les moyens mais yàlla moo ne nii lay nii nii laa ko bëggee donc assistance boobu noonu dañ koy soxla mais tey jii tamit am na côté boo xamante ni tonton Matar hmm, ku góor ki ci boppam parfois moo koy teg sax soxna si nga xam moo am doom. Hmm, pression pression bi. di ko hmm. nga dégg wax yu naqari. sa doom bii nga fi indi doomu lan la. Hmm, parfois nga dégg. de waaw may ma ma ñëw. ma waaw non ma ma ñëw. nan ngay juree doom naan ah, yow yow yow yow yaa ngi si milieu cinéma te récemment théâtre nañ ko fi yaay yaay 2.0 bu Calista bi. amoon na amoon na forme boobu. Hmm. boo xamante ne tey jii papa ji pression la pression lañ ko toppee ba ba mu rëññee li nga xamante ne mooy xale bi. xanaa kay loolu yaa ngi si milieu cinéma. Hmm. lépp lu ñu lu ñu lu ñu joué nit ñi dañ ko dañ koy def. Hmm. donc mais booy booy booy wax xam nga yow sa wax dafa rafet. mais parfois tamit da ngay wax li nga xamante ne moom moo nekk ci biir dëkk bi. nit di ko teg nit. le vécu nit di ko waaw. j'ai nan la a jur xam nga yow doo ko xam nga yow mënoo ko comprendre parce que yow sa xol dafa rafet nit ku baax nga mais hmm. am na nit ñoo xamante ni ñooy def loolu sa yow sa ku góor ki mën na ko bañ parce que ci théâtre bi ku góor ki dafa xaw a feebu ci côté yaayam hmm. ñaari doom la am hmm. ku njëkk ki dañ ko moom lañ ko tu yaayam lañ ko tuddee mère bi bëgg xale bi parce que xale bi dara jotu ko mais keneen bi mu ñëwee am handicap yaay ji dañu ko doom ji nii doom ji bonne façon doom la ku góor ki daal moo ko wax goro bi waaw goro bi daal rëññee rëññee xale ku góor ki ñu ki jabar ji jur indi ba jabar ji dafa finalement dafa divorcé ni ko ma sama doom moom a gën a sëy bi divorcé dem. ah oui gis waaw parce que yooyu yëpp nii dafa dafay am mais xam nga jamono ji sax pour boo seetaane série bi da ngay xam ne que ni jigéen instant bi ni gëm na boppam. Mhm. par rapport ak bu njëkk ba bu njëkk ba mag ñi dañ ko daan misère seen xol di métti xam nga. Mhm. yow ni nga war a toppatoo wee xale bi sax doo ko toppatoo da ngay jël sa parfois xale bi nga nga koy xoolee benn bët. parce que mhm. da naan moo yàq sa sëy. wala xale bi moo la indi yenn yenn yenn problème yi. yaay ñëwal waaw pression yooyu waaw. comme comme comme moom euh, ni ko Fatou Bintou waxee. Euh, du ñëpp ñooy def loolu mais am na ci biir société mhm. sénégalaise bi ba jamono ju ñu toog nii mhm. ñuy def loolu euh, dama ci am preuve rek euh, wax la ne comme moom ni mu waxee mhm. ni mu ko commencé am na ci ñoo xamante ne man am naa sama turandoo boo xam ne dem na ba nekk jànq jànq sama turandoo Euh, mu nekkoon tris trisomie 21 la amee woon. Mhm. Euh, elle ne pouvait rien faire. mais yaay ji ak papa ji meloon nañ si ñoo noo xamante ne. mais trisomie 21 mooy mongol. waaw te waa genre boobu la. genre mongol waaw waaw surtout variante la ci. mais da leen di gis ña nga institut Pasteur chaque jour ña nga ci analyse ña ngay defar mm. yaay ji dafa bañoon ba suñu cousin bu gaañu maa ngi leen di jaalewaat ndeysaan ah, soxna jaaro Jóob bi gaañu woon moo doon ñëw mm. di ko toppatoo parce que la maman travaillait ñu sopp ko bëgg ko di ko lijjanti ak suñu beneen euh, doom baay boo xam ne tam doomam noonu la meloon. Mm-hmm. dañu dañ leen doon solal. du mm-hmm. euh, boo ñëwee gis leen ñu toog rek. Mm-hmm. te dañuy yànj en général. dañuy yànj di animé ak yooyu. Euh, handicap du dara. ci loolu dinaa ci rendre un hommage à feu Aminata Mbaye. madame añ mi nga xamante ne gis nga doomam boobu doomam. bu mu juddoo suñu crèche lañ ko indi. la fille suñu euh, awali Agne elle s'appelle euh, je je la je lui fais un coucou parce que ne dama tata am naa doom marié naa. Mm. elle m'a montré son enfant. Mm-hmm. donc pour te dire que handicap bi mu amoon c'était tellement lourd. Mm-hmm. ba ñu bëri perdre nañ espoir. mais à la crèche. Mm-hmm. tout le monde s'occupait de cette euh, petite fille là. xoolal tey yàlla li mu def si looloo tax yaayam ubbi centre bi ba nekk fële. centre Aminata mbay bi. à cause de cette fille là. Euh, genre trisomie la. Mhm. mais vraiment euh, avec euh, les médecins les docteur Fall à l'époque un grand pédiatre gars yi jàpp nañ ci ba xale bi sauvé. Mhm. ba ba ñu topp ci tamit am na entretien daal. li mu wax neen dëgg la parents yi bu ñu takkoo rek. Hmm. jël seen fit yor ko et puis euh, bañ a joxe beneen visage. parce que hmm. papa ji bu amee beneen visage wala yaay ji rek. Hmm. day ressentir si day nekk un ressenti au niveau de l' enfant. pour te dire que euh, bu njëkk ba. bu ñu waxee tuuti si un peu bu njëkk ba doon nga jur doom ñu ne la kii jënd la. demal sàn sànni ko ci xorondom ba. dañ lay wax demal teg ko foofu. pourtant xoolal yow ni nga amee sentiment jur. ñu ne la jëral nga dem sànni ko xam nga loolu benn yaay mënul attan noonu. et puis doo am sax courage dem di ko yóbbu. et ah. pourquoi on te dit ça. Mhm. loolu warul nekk mais loolu defe naa man gëj naa ko dégg daal. Mhm. léegi nag euh, lii gën a tax kii bi sujet bi nekk un sujet d'actualité sensible. Mhm. bu ñu war a wax. Euh, association yi. Mhm. ñoom ñëpp dama leen di rendre honneur parce que je connais les les présidentes. Mhm. ñoom monsieur Fall bi dëkkoon Tëngéej ca nekkoon ci bu lu yàgg. Mhm. Euh, comment il s'appelle le conseil municipal là de Rufisque nekkoon na sax euh, association en Afrique. jiite woon na ci nga gis ñoom day daggee géey waa Médina la rue xale yi am seen i atelier. li ma gën a neex ci ñoom dañu am seeni i atelier dem nañ ba handicapé am nañ am nañu kii mannequin. yaa ma Njaay. mu ngi toujours si Facebook bi. et puis elle est couturière. Mhm. Euh, tonton kooku moom. macha allah elle est belle vraiment waaw mhm. yaa ma def am elle est couturière. Mhm. te day togg lu lu man daal da man daal handicapé yi li may wax rek mooy nañ leen gën a jàppale ci quinze pour cent yi gouvernement bi waxoon. loolu tam il faut qu'on le rappelle am na gouvernement bu xaw ma kan la ci woon ci président yi mu ne nañu fexe ba ñuy jël 15 pour cent ci ñoom. di leen dugal am na ku mu defoon conseil. waaw di leen waaw waaw. waaw si si si si. Aïssatou elle est écrivaine elle est écrivaine. wala laa bëgg ñu xam. waaw mhm. damaa bëgg ci wàllu bu mhm. parce que man àdduna rafetal laa mooy dëgg sax mhm. dama ne. waaw xam naa. ñoo xam ni. waaye seeni doom yu am. nëbbuñu leen nëbbuñu leen moo leen gënal seeni bët. wax dëgg yàlla nëbbu ñu leen. duñ koy toppatoowee. te loolu dafa baax. liñ taw ak taw parce que da xam ne kii motul. da ngay def sa diggante ak yàlla def sa diggante ak moom et puis les mamans sont dévouées. nga ñëw ànd ak moom. waay di ko jox lekkam. parce que xam nga ne mënul boppam. mais xale loolu laa gëm. waay waay. nit bu amee laago. Mm-hmm. lu mu xaw da ngay xool nit sax bu feebaree. Mm-hmm. mënul boobu tëdd feebar tëdd ci kaw la. mais nga gis nit ñi ni ñu koy taxawal. wallaay wallaay nekk ñu defal ko. wallaay mm-hmm. mais am na ki nga xam ne yàlla. xañ na ko. waay te am na ñoo xam ne da ngay jàpp ni. du du du laago ju doole. ñii ay pneu moo leen ko def. waaw am na. Mhm. dëgg la mhm, dëgg la. nii ah, mhm. nii. ay accident nii moom. des accidentés sama sama frère bi ma lay wax nii lan moo ko jox. méningite méningite. mais ñooñu. lu waral nit war leen a nëbb. xanaa amuñu wàll ci yàlla suñu borom. wallaay xanaa amuñu yàlla am nañ ko ci yàlla am nañ ko ci àdduna am nañ ko ci yoon. cosaan nag. ak jël toppi aada. ñu naan sa doom. bi rab la. sa doom bi ni mu da nga ko war a yóbbu ko demal wala boo ko joxee lii nii après boo ñëwaatee dootoo ko fa fekk day dem. day dem waaw nee naa lay wax day dem day dem si mhm. seen famille. Ah, ah. lu ne la ñuy wax la day dem wala parfois nga dégg sax ñu ne la bu fi yàggee sa dara dootul baax. Oh waaw mm. sa dara dootul baax ñëweewul ak ñëw bu baax ak mm, yooyu. Mm. waaw yooyu lañ lay wax. mais heureusement heureusement y a des structures yoo xamante ne sax Euh, ay nit nitu jóge yeneen réew. Uh-huh. ñoo ko taxawal Sénégal parce que amoon na ci benn wakaam boo xam ne c'est un je crois que ça fonctionne jusqu'à présent ay da ñoom dañu bañ ba dañuy recruter. Uh-huh. des éducateurs spécialisés yu doon génn NAS uh-huh. ancien NAS. ba léegi dafa ñu ngi def loolu filière yooyu xale yi dañ doon génn di liggéey ak ñooñu. di jàppale xale yi. te dafa am solo même bu dee ñaar wala ñetti nit ñoo réussir sax exemple la bu ñuy wane. partout naa la moon que Sénégal am nañu des infrastructures des structures. ñuy toppatoo xale yi nga xam ne dañuy vivre avec un handicap parce que mm-hmm. loolu la wax wala ñu ne les personnes à mobilité réduite mm-hmm. euh, te bés bu nekk damay nekk ci ñoom parce que ñoom lu ñuy def ñu ngi fii en face gis nga fi ñu fi ñuy taxawee jël kaar mm-hmm. fa la ñuy réunion si yenn saa yi damay jékki-jékki xool ma ne ndax sama gars yi nekkuñu fii euh, parce que ñoom dañu def prise de conscience bu mag a mag bu très élevée malgré les faibles moyens wala malgré le faible recrutement bi état bi di def ñoom ci seen bopp ñu ngi dajaloo di def seeni affaire mhm. parce que am na ci ci ñoom euh, madame Dagué Gueye madame Dieye d'ailleurs elle est enseignante hein enseignante de formation mhm. mais elle vit avec son handicap yo day yor ay béquillem mhm. ak fu ñuy réunion day dañuy dem et ñu ànd ak ñoom ci revendication yi xam naa demaguñu ci revendication wala ñoom li ñuy daj ci biir yenn euh, service yeeg yooyu. voilà mais le handicap. bu njëkk sax bu njëkk léegi nii sax yaay la la la la gën a xaw kii sax wàññeeku. mais bu njëkk ba dañ daan pour ñu wut liggéey problème la woon. waaw da dañuy jàng yor yenn diplôme yi voilà pour cent. Mhm. et puis na temps tamit ñuy jàppale yenn handicap yi ñuy dem mhm. benn centre bu nekk à Lille. Mhm. Euh, dans le nord de la France am na ku ñu ci xam monsieur Sissoko de Tam Bamba maa ngi nuyu sa sa sœur mm-hmm. parce que à l'époque sonnoon na ci lool ba ñu dem ba présidence et tout ça mm-hmm. et le gosse était parti pour poursuivre ses études moi moi société de transport bu mag bi nekk pour ne pas faire la publicité. waaw société de transport bi nekk Wakaam. waaw damuy jël kaar nit ñi di wër. am naa ay xale yoo xam ne ci quota bi Ablaye Wade joxe woon. ci lañ nekk receveur. si si Mbaye Diop ngi fii si ñaar tel. mu ngi koy liggéey mu ngi fay liggéey. ba léegi tous les soirs damay dajeeg moom. Mm-hmm. mu yore sagam. Euh, bis bi wàcce ko. am ah, jox wala muy xëy la matin bis bu wàcce ko. gis na nii ngay wax ni dañoo am laago. Mm-hmm. parents yi bu leen encadré wul. dëgg la. génne leen. Mhm. taxawu leen. Mhm. bu ñu màggee dañuy faible. Mhm. dëgg la bu ñu faiblee. du ñu mën a dem fenn. ku seen mbokk bu ñu wootee du ñu dem. bu ñu amee ay du ñu dem. bu ñu bu am benn complexe bu nekk si ñoom. si si infériorité bu ñu leen encadré taxawu leen. dañuy am dignité. man. ça fait des années. dañu am jom. am naa benn xarit bu nekkoon inspecteur des impôts et domaines. dama daan dem bureau am. Mm-hmm. su ma mosaan dem en face gendarmerie mm-hmm. am na soxna soo xam ne xam naa ne mu ma dégg. ndeysaan inspectrice principale des impôts et domaines loolu. bu doon yëg ramp yi boobu mm-hmm. créé bu ñu ramp yi. ramp yi waaw da nga daan gis difficilement la day metti woon ma koy xool balaa ma ne kii fii lay liggéey ñu ne ma inspectrice principale des impôts et domaines la. Mhm. mu nekk kilifa gu te mm. xam naa ne mm. jamono yooyu ma fay dem. Mm. boobu ñoom Sonko ñun ñëpp dugguñ ko. parce que c'était au début des années quatre vingt dix. Mm-hmm. ñooñu parce que dañ ko encadré. teg ko ci yoon. Mm-hmm. taxaw ko mu garder dignité mm-hmm. di jóg di jàng. te dañuy am jom di dem am jom base bi mooy famille yi la ak parents yi. nañ leen toppatoo. mais mais mais mais mais boo leen boo leen bàyyi ci biir kër yi. ñu toog bu ñu màggee. bu ñu amul liggéey bu ñu lan moo leen dese. tàllal loxo tàllal loxo. loolu nag baaxul. tàllal loxo yàlla waan moo leen dese. moo leen dese te ñi koy def. yàlla mi ngi itam bugguñu ko. dëgg la. ñun en Wakaam association bi. ku ko jiite c'est un informaticien. dëgg la euh, programme boobu euh, maître Ablaye Wade defoon ñu koy saluer si yenn yu bëri yu mu def daal programme bu mu defoon ne par exemple ñoom nañ leen former pour ñuy réparer les ordinateurs. yaa ngi fàttale ko ak les téléphones yooyu. xale boobu dafa bénéficier woon ci formation bi bu nekk formateur. monsieur Mamadou Ndaw maa ngi koy saluer. te toujours dañuy ut ay initiative même 8 mars bi sax amoon na lu ñu bëggoon def ma ne ko c'est dommage que duma mën a ñëw. parce que duma fi nekk mais bu fi nekkoon. kon damay ñëw fekk seen bos parce que yéen samay nit ngeen ñoom ñëpp seen euh, groupe bi et puis à Wakam ils font de ces choses affaire céramique ñoom euh, ay France sax yëpp la am ay euh, mhm, partenaires yu leen di jàngal mhm. li ñuy def ci dessin yi décoratif dañuy defa ay saak di ko jaay ay saagu tissu mhm. artistique yi ñuy jaay nii ah, yooyu waa batik yi voilà yooyu yëpp dañ lu ne la ñuy def à Wakam mhm. seen centre mu ngi en face de la gendarmerie de Wakam pour ne mhm. pas faire de pub il faut que ñuy jàppale xale yooyu parce que ñooñu seeni i famille euh, am nañu courage di ñàkk jot di leen yóbbu ci li ñu war a dem te loolu dafa mën a am li moom mooy moom mooy farlu ci dañu jël temps waaw mhm. dañu jël temps ak euh, famille yi nekk centre Talibou Dabo nañ leen jàppale waaye parce que mhm. centre boobu mhm. temps yëpp y a des entre le personnel et la direction nañ leen gën a jàppale ba ñu am gën a am ay oto yuy jëm ramasser ci xale yi di leen indi parce que loolu tam si la bokk. mais mais mais mais yaay est xam nga ni tamit parfois day day métti si ñoom. da ngay mm. dugg yenn bus yoo xamante ni wala yenn transport en commun yoo xamante taxawaay bi sax c'est très difficile da ngay gis ku toog ñoom ñu ñëw taxaw au lieu que ñu may leen sax ñu toog dañ leen duñ leen duñ leen sax faale mais

bu day wàcce day wàcc. Mm-hmm. ñu dugg ñu am béykat. Mm-hmm. yooyu la ñu war a appliquer ci réew mi te xam ni. wallaay laago jombul kenn. dëgg la ngay gis parfois taxaw ba ba ba ba fu ñuy dem. dafa metti du toog day metti. bu suba mm-hmm. yow mi leen di seetaan bañ leen jox place bañ leen ko dimbali. Mm-hmm. ñuy daanu. wala ñuy dox ci mbedd mi nekk si coono. bu subaa mën na la dal. dëgg la yàlla waxul kenn daal. dëgg la adduna moo ni demee. sunu borom moo yor xalimam. te te nañu fàttaliku ne lépp lu mu def ci nit. mooy li gën. bu ñu sañoon nag ñun ñëpp. Mhm. ñu mot la sëkk di dégg di wax. Mhm. Mhm. di gis. mais mais mais mais mais mais tonton yow kon lan ngay wax ñi nga xamante ne parfois euh, yàlla moom moom yor ay mbiram ah da ngay mm. nekk jigéen wala nga nekk góor. Mm. bëgganteeg koo xamante ne tey jii handicap la. yow foofu tam am na problème. mais euh, famille bi ci boppam ñoo leen njëkk a découragé loo. ñoo xanaa say bët baaxul ak yow lu la dal ba nga dugg ci kii ya xanaa mm. da ngaa dof xanaa gisoo say ay morom. yow amoo looy def lu dul di dugg ci ah, ci ci kii da laa mënal dara. dañ lay découragé le du te sottu ko sax yow ki nga bëgg pour mu pour ngeen sëy sax sëy bi day jafe. weddi yàlla. Mhm. Mhm. voilà. Mhm. yàlla rek yàlla dafa am mbiram. yow yaakaar na ni. boo sëyee ak ki nga xam ne dafa am law. sa dara du baax. waaw du la mën a yor. nga sëy ki nga xam ne mataar ju bi nga xam ne dafa mot sëkk. du la mën a jox benn benn dépense. te xel xel ma dara baaxu ci. te xel ma baaxu. dara am sottiwul. mënuloo yor. kee ngay xel. am naa doomu bàjjen boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm lan mm-hmm. dafa amoon soxna. Mm-hmm. soxna si dafa dafa mu. xoolal lu dëkk lu wax. ndeysaan ndeysaan. soxna soos tey jii. moo tey jii sama cousin boobu. Oh, mën a waxtaan. bu ñuy dugg si jëkkër ji nag am ngor mm. téye ko mm. mm. téye bu rafet. ko bëgg. bëgg ko téye ko téye bu rafet. sama bàjjen moom it ak sama cousin yi ci kër gi. yàlla may leen situation. mais ñu uuf ko uuf boo xam ne. loolooy dëgg. maanaam li ngay wax ne bés bu ma cee xeebaate. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam téye ko te xam ne. Mm-hmm. dañoo xam ne bu suba. ah yàlla mën na def lu ne. waaw ah. li seen xarit xarit bi wax maam Ndiaye. yàlla mais mais mais tonton li ngay njëkk gis ni ah dañ koy dañ koy defaan ah, dangay dégg ñu naan naa naa jël exemple ci ma da ngay dégg ñu naan kii diw faatu muuma mm. ñu wax turam de faatu muuma ngay dégg ñu way wax wala nga dégg ñu ne Moussa muuma déjà appellation yooyu rek moo njëkk a du loo xamante ne lu lu rafet la waaw yàlla mën na lu ne nee naa la sama grand bi dem na ba jege 60 ans. Mm. Mm. jékki-jékki daal di déggutu. wallaay di takk appareil ba yàlla noonu la ko jëlee. Mm. Mm-hmm. ñaata nit la ñu xam ci suñu kër yi ñun ñoo xam ne lañ jékki-jékki seen bët di. seen bët muuru muuru. am na ñaata nit nga xam tey gin ñu génn accident bu gaaw lor leen. liggéey ci ci. menuiserie machine yi. wallaay accident travail wallaay wallaay yaa dox dox jege dara lu ko sa bët mu fatu mm. bët boobu daal di mm. yàlla moo fi nekk. Mm-hmm. fii kenn jarul xam nañu ñaan yàlla. Mm-hmm. mu dolli ñu sutura. Mm-hmm. mais loo ñaan ñaan aussi yàlla mu yore xalimaam. bu xëyee suba. Mm. teg benn tombo daal dina Matar Diop nii. bu subaa tànk ba wala loxo ba wala bët ba doomu aadama mënu ci dara. mais sëriñ bu gën a aay. mais sunu borom moo bëggee noonu jaamam. te kon nag suñu borom. Mm. lu mu def gannaaw kenn mënu koo dindi. Mm-hmm. ah tënku rek. Mm. mais mais mais mais yaay tonton xam nga man tonton Matar moom xam nga maa ngi moom suñu waxtaan. waaw mais mais côté bu rafet bi rek ah. mais mais mais mais pour te des familles yoo xamante ni guerre nañ ci. Mm-hmm. diw du la takk. loolu kay ñun bés bu nekk dañ koy dégg waaw diw la takk wala soo sëy diw ma bàyyi la àdduna ak àllaaxira parce que diw handicap la handicapé la mais waaw ñooñu dañoo weddi yàlla waaw et puis weddi nañ yàlla ñime nañ aussi ah. ah loolu du yoon parce que non seulement weddi nañ yàlla mm. mais seen éducation des na parce que am na milieu boo xam ne buñ buñ la fa yaree. Mhm. yow nit koo gis da koy teg ni sa bopp. Mhm. parce que on est tous égaux devant Dieu. loolu ku xam ne yow ñun yàlla moo ñu yemale. Mhm. ki ñu indi moo ne maay euh, moment bi kii dina mën a wax moment bële kële dina dem moment bi te yenn moment yoo xamante ne di nga toll situation boo xam ne ngay tëbal. yàlla ñëw arrêté. lépp ne lii jeex na tey. donc yow bu fekkente ne yow def nga loolu sa xel. nit koo gis rek def ko nekk sa bopp. Mm-hmm. nga jàmm ko jéem koo jàpp. parce que ces femmes là handicapées au ces hommes handicapés ñoom ñëpp ñoo koy waxaam ah. ñoom bu ñuy wax góor yi dañuy wax côté bi jigéen ñi wax côté bi. Mm-hmm. su jigéen ñi waxee ne ah ñu de am na ku ñu bëggoon famille ba nit du nangam nangam da ngay dégg góor bi mu ne man am naa ku ma bëgg. koo xam ne oh. du way ko mais famille am aussi dañuy wax. Mm-hmm. donc loolu euh, dafa nekk loo xam ne si biir société sénégalaise man man mariage d'intérêt laa ko parce que mère yi goro yeeg yooyu. seen intérêt la ñuy xool. parce que ñoom bu ñu sañoon dañ leen di indil ku ne cocc koo xam ne dina mën a toppatoo. dañuy dem sax dañuy dem sax dañuy dañuy dem sax ñi bëggante ñoom seen yoon nekk ci. waaw pour société bi gis seen bopp. man ak Fatou Bintou. Mm-hmm. dara nawul suñu diggante lu mu bëggante. waaw mm-hmm. amuñu laago mm-hmm. amuñu dara. waaw mu rafet loolu. ñëpp ne waaw ñëpp ne waaw. ñu ndax seen i cër lépp nangu la. Mm. ñu ngi liggéey mm. mm. ce que dañ naa kii demal luñ ko war dañ def. waaw waruñu koo def. mais mais mais na mën nañ fa am compréhension mais fi mu ne nii lii lii doy waar mooy xam nga tey bu ñu nee handicapé ah ba tey bu ñu fàttee ñi nga xamante ne ay petite taille lañ ci lañ ci lañ ci lañ bokk da ngay gis ko xamante ne petite taille la wala daal ah, am na ci ñu ngi liggéey liggéey trop ñoo xamante ne petite taille lañ wala mm. ñoo xamante ne dañoo yor benn handicap boo xamante ne da ngay dégg li wax ji gën a ñaaw mm. ñu naan la boo takkee kii mënul laa amal doom xoolal lii rek yow kii te pourtant ñoom dañuy am ay doom ah. mm-hmm. am ay doom da ngay mm-hmm. dégg ñu ne kii ngay takk leen la ne xanaa bëggoo am ay doom kii bu kii bu amee doom fan nan nan lay nan lay mel kii nan lay kiiwee ci doomam dañ lay wax wax yu soxor yoo xamante ne yow da ngay dem parfois ku góor ki day dëgër ne la mm-hmm. moom laa daa bëgg daal di jàkkaarloog famille am oh. ñu ne ko dañ ñu ne ko dañ lay déshérité bàyyi nañ laa yaa xam xoolal y a un cas dans le YouTube temps yee xale bu jigéen bi moo kape xale bu góor bi bëgg ko mais xale bu góor bi day wax ne mu ngi daj pression yu métti métti metti pour mu bàyyi xale bu jigéen boobu mu ngi ci YouTube temps yi. te marié nañ ko defal nañ ko lépp wax yi ñu tuddee ah njëkkee wax yi ñu koy tuddee ah ay ah. sagar yu tooy lañ koy woowee. Ah, ay ay soleil boo xam ma kii soleil nee nañ mm. boo soleil boo xooj. maanaam. jëri oh daal nee dañ koy wax wax yu soxor yoo xam ne boo ko déggee danga naa naan est-ce que ma Sénégal laa nekk tonton. moo tax parfois sooy man la yow ni nga féetewoo ci côté baax moo tax munoo gëm ni am nañu doy waar mais am na ñu doy waar ñoo xamante ne da nga naan est si réew mii lañ nekk. waa bi nga nekk. waaw lu am la. Mm-hmm. nit ñaa ngi wax. Mm-hmm. mais moo tax toujours ma lay delloo ne la. Mm-hmm. parce que lu ñu waxtaan waxtaan ci yàlla rek la ñuy dellu. dëgg la moo tax ma ne la. ñooñu dañoo weddi yàlla. dañoo weddi. parce que loo mënta wax tamit. doo gis beneen qualificatif. ndax suñu borom wax na ba ma commencé dama naan moo yore xalimaam di bind. te ku sañoon. am lu gën a baax lu gën a jekk lu gën a rafet. wallaay nee naa la nit bu tukkee sax wuti ji alal. Mhm. bu sañoon ci benn bés bi lay am lépp lu muy am. voilà mhm. nee naa la nit buy sëy sax bu sañoon. Mhm. bés bu mu jëlee soxlam la ciy am doom ju baax ju rafet moom ngir te noos def nii. mais sunu borom mooyu yore xalimaam. gis nga ñooñu di weddi naan ndaw si dafa am laaw wala waa ji dafa am laaw. lu ñuy wax sunu borom. suñu borom moo sàkk nitam. waay te yow mi nga xam ne yaa koy bañal ndaw si. Mm. di bañal sa frère ki ñu takk. waaw wala di bañ sa sœur ki mu war a sœur. Mm. yow cinq minutes après suñu borom mën na la teg laako laako. laay laay mm. bi ñu nekkee xale amoon na benn film bu fi tuddoon euh, Tafache yooyu bu ñu doon wax Lapiche. waaw. waaw lapis waaw waaw mm-hmm. su ji dem France ba ñu opéré xam man magu démb ah, ko ba <laughs> <laughs> ba. ba opéré ko ba mu ñëw moom moom mu def accident. ñu dagg tànk bi te moom lañ tuddee doom ji. moo tax ma ne. Mm-hmm. gis nga fii ñu nekk nii. Mm-hmm. nit bu ko dara dalee. donte yéenewu ko mu nekk nag bu ko dal. suñu borom teg ko. suñu borom moo xam ne tax mu teg amaana moo di gën ci nga am njaboot yoo xamante ni dara du leen dal. da gis koo xamante ni bëti day muuru mu am doom doom yi sax ñoo koy gidee dara du leen dal. Mhm. am na benn xale bu doon def thèse nga thèse am ak ñëpp dañu fa. bàyyam bi mu ñëwee ci pousse-pousse lañ ko teg. Oh. Mhm. seeram daw papa ji daal di ñëw tàccu xaritam yi ñëw. xale ba ñu jox ko mhm. dafa daw ay diplôme dem jëbal ko bàyyam. dem def ko bàyyam seeram day daw. kooku xam nga ni. liggéeyu lu teral njabootam. dëgg la mais kooku tey jii doomam fi mu génn. Mhm. nekk médecin ñu jox ko doctorat bi mu def teesam. Mhm. bàyyi xolam sedd na. sedd na waay. Ah, mhm. xam nga fii man li may bañ mooy. nit ñi di génn ci cadre yàlla. waay ñu bari génn nañ ci nag. Diop cadre yàlla di topp ak. Diop soo génnee rek xam ne ñu bëri génn nañ ci. di wax naan. mënul mm. la diggante xàcc ak dóor la ñuy wax. yaa yi ñëw ci solution yi ah, yegsi nañ ci tonton sax annoncé na ah euh, couleur yi. Ah, waaw léegi solution yi daal mooy comme niñ ko waxee euh, nañu am un sentiment de. compassion mm. maanaam ñëpp ñi nga xamante ne yàlla def na ñoom seen cër wàññeeku wala gisuñu wala mënuñu dox mm. wala mënuñu bind wala mënuñu wax wala dégguñu mm. seeni famille d'abord nañu wane l'exemple parce que bu famille bi jëlee considération rek couvrir que d'amour ñoom sax si seen bopp ñooy bëgg a réussir. Mm. parce que daf leen di may doole dañ leen di fital. Mm. mais bu ñu jëlee seen fit si biir kër gi déjà ñii di leen xool ñii di leen moytu ñii di leen ciipatu ñii di leen romb ñii duñ leen sax considérer Euh, foofu ñoom tamit dañuy am benn sentiment ne man euh, du ma dara. Mm-hmm. je suis dans la société. Mm-hmm. donc damay def sax di affaire yu nul nullité amatuma njëriñ ci société bi waaw day day tax ñu voilà seen dignité wàññeeku bu baax a baax a baax te loolu baaxul léegi boo leen mayee euh, reetaan un mm-hmm. joli sourire ni leen nuyu ne wan leen ne daal yéen maak yéen ñooy ñooyam dañuy am volonté pour dem dëgg la waaw am volonté pour dem mais soo leen freiné rek tamit c'est mental mhm. parce que nit ki tamit ñun ñii comme ñunu am na yoo xam ne boo xoolee sa collègue xoole la benn bët bi rek nag di nga posé wu la question. Mhm. wala moo tax Fat Bintou tey kanamam. rek mhm. kii ubbeekuwul ci man. tu vas te poser des questions sàkkaatuma nag koo xam ne am na handicap ba pare. nañu góorlu daal jéem leen a jàppale daal. tonton looy tàggoo. di euh, nuyu baax sama benn xarit bu ñuy wax Alpha Dior. ndeysaan. mu ngi mooy président association. des handicapés moteurs de Grand Dakar. ah Grand mhm, Dakar bu euh, baax bu ñëwee ba ci gélo bi ko ñu poste bi. Mhm. seen bureau fa la nekk. Mhm. jigéen ñi ñu ñëw. ñii ñu ngi machine yi. ma et ñoom seen association bi. am na benn. am nañ sa euh, club bu ñuy wax euh, bu ñuy wax andi basket. waaw waaw am nañ sa ay joueurs équipe nationale. mais oui il faut penser à santé ay ñoo ñoo màggandoo. ndeysaan ñu doon jàmbaar bu baax yore vélo moteur ma fekk si mbedd mi nekk lu nekk damay yëkk. ndeysaan léeg-léeg lu ma gis mu romb jël karawaasam. waaw bu ma rombee bu ma cawee. ndeysaan lii lii tuuti dañuy xam ne que. dëgg la euh, dëgg la waaw am nañ suñu benn xarit bu ñoo Pape Maysa. ñoo mm-hmm. dëkk Gibraltar. Mm-hmm. ñoo ñooy la seen lu bëkki. te dañuy ànd baalandoo defandoo. ndeysaan bi moo ko moo ko tëj. ça veut dire que seen waa kër yi dañu leen encadré. dëgg la ñu garder seen dignité mm-hmm. tey xëy di liggéey. xëy di daan seen doole. takk jabar ak i ay xale yu macha allah ay doom yu rafet. Mhm. yore seen i doom. Hmm. bokk ci société bi. man ñooñu laa gëm famille laa leen. Mhm. nañu encadré seen njaboot. Mhm. ñu ñu ñu ñu yëg seen bokk ci société bi. garder seen dignité. bu subaa duñu tàllal loxo. Mm. macha allah dañuy dem. liggéey daan seen doole. Mm. ñëw ñu man daal j'invite à toute personne boo xam ne. handicap mu yow. bul nangu ku la sous-estimer. Mm. nangul bokk ci société bi. macha allah mhm. conseil liggéeyal. Mhm. Mhm. dana sa doole. te xam ne ni nga teg li la dal bu boobu. yàlla la yàlla rek la du doomu aadama. macha allah nit nit bu yëkkati dara teg ko ci xaw nit sax. yàlla moo nangu. macha allah tonton di di tëj nag ci di souhaiter vraiment. ascension. di ko souhaiter sunu parents catholiques yëpp. en particulier sunu mbokk yi nga xam ne dañ nekk ñoom fii ci kër gi. ñu mel ne ñoom Jacques Gomis ay ñoom Claire. ak ñoom Faye ñoom ñëpp di leen xam ni que rek. Sénégal benn bopp la. Mm. réew mi suñu réew la kenn mënu ko ñaar. Mm. kenn war ko xar ñaar. yaa wax lii yaa wax lii. Ah. léegi woon jubóo ngeen jubóo ngeen. loolu kuy borom waaw droit d'auteur droit waaye yaay baax na baax na yàlla baax na yàlla baax na. xam ne dañoo war a def émission à l'extérieur. Mm. waaw ma dinaa woo <laughs> ne ko bu ñëwee bu mu bu wax <laughs> waaw loolu la olof naan lu sotti am borom waax naam benn problème lu sotti am borom macha allah ba tax na ñu ngi kontaan bu baax a baax lii la leen indiloon seen émission tey xew-xew réew mi mu nekkoon na plateau macha allah boo xamante ne tey sama yaay laa jàkkaarloo sama tonton macha allah mu nekkoon mm. émission bu neex laa daw me ba tax na tey nee naa la lépp lu ñu fi waxtaanee rek ak lépp loo xamante ne génne nañ ko ci xel mu sell ak ci ay solution yu sedd guy ñu ngi koy may ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk yeeg ñi nga xamante ne ñun ñoo ñoo daal ñooy ñoom ñooy ñun macha allah te émission bi yéen ko moom ak suba incha allah bu baax a mm. baax a baax ñu leen di bàyyi xel ba tax na ñu ngi remercier ñëpp ñu ngi doon seetaan ah, dañu bàyyi xel Sénégal rawatina diaspora bi di wax diaspora bi préparé leen rek tontu ma nee na mm. <laughs> ba tax na maa ngi remercier techniciens yi nee naa su baaxee su rafetee seen loxo la jaar ku ci mel ni Malick l'international kenn du moom ci liggéey bi macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax fàttewuma l'incontournable Cissé waaye kenn du ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Ndoye moom tamit day jàpp si liggéey bi macha allah tonton Matane tamit duñ ko fàtte moom tamit day jàpp si liggéey bu baax baax waaye kenn du suñu rakk en peine dafay ci disponibilité bi ci liggéey bi ci sawar beek ci defar ba mu rafet ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje demee incha allah rek même heure même chaîne merci et bonne fête. Many days.